mbokk yi ak xarit yi dañuy ñëw ak yéen ci li nga xamante ni bii mooy dernier point bi muy le huit ndaje Ousmane Sonko ak ki nga xam ni moom la ñuy tuddee Mame Mbaye Niang ñu war a am muy procès appel bi nga xamante ni moom la wax ci kaw ñu di ko wax Ousmane Sonko moom ci jëmmi boppam mu programmer le huit. foofa ca Casamance joxe fa ngir def fa ndaje ma nga xam ni moom la fa war a def ci la huit ca huit kon loolu mooy ñëwuma ñëwuma kon loolu mooy li nga xamante ni bi moom la wax parce que bu ñu programmé le huit mu programmé le huit loolu mooy ñëwuma Ousmane Sonko ci lan la ne nit ñi nee nañ euh, respecté wul yoon mais boo dégloo danielle sortie bi mu sorte bi mu génn moom dafa wax ni fi mu jaar ak yoon depuis que mu tàmbali dugg ci politique ba nëga ni mu ne 2016 ba nëga ni maanaam wane na ni moom même biñ koy dàq fiñ ko jaarale jàpp na ni teguwul ci yoon depuis que muy politique ba nga ni ni yëf yi di demee jàpp na ni amul lenn loo xamante ni bii nee nañ ko yoon a ko ko teg lu jaar yoon mu taxaw wax ni nag day résister parce que jàpp na ni yoon du yoon loolu mooy li nga xam ni moom la jàpp xam nga ñiy wax ni dañuy jalgati yoon xam nga dañuy dellusi dañuy areeraat tuuti ci ñi nga xamante ne bi tey parce que biñ ñuy wax jamonoy njaam jamonoy esclavage dafa amoon ay texte yoo xamante ni bi tey moom la ñu tegoon ne lii la yëf yi demee maanaam jaam dafa dagat nii lañ ko war a defee mu am ñu taxaw di ko xeex mais ñi taxawoon di xeex jàpp nañ ni li ñuy xeex du yoon moo tax ñu di ko xeex léegi ki nga xamante ni kii mu ngi doon artu ñi nga xamante ni bii ñi ngi xeex mbir moomu day jàpp ni kii di xeex lii doxalut yoon donc kon yoon mu ngi dépendre ci kiy wax ne diw day jalgati yoon nan lay tuddee li ñu teg nit ki parce que tey bu fekkente ni bi nangu nañ ñi lépp li ñu teg Ousmane Sonko lépp liñ ko teg di tëj këram sans pour autant que mu am benn këyit bu koy firndeel dugg sab oto ñu ne la wàccal jaaral nii li ñu gis népp bu fekkente ne bi jàpp nañ ni loolu du yoon bu fekkee ne danga jàpp ne loolu du yoon li ngay gis ni yëpp ñu teg ko ko nga jàpp ni du yoon kon waroo mën a taxaw ne waa ji warta jàkkaarloog yoon parce que bu fekkee ne da nga jàpp ni du yoon kon dafa mel ni yaak moom yéen a bokk yéen a bokk gis-gis bu fekkee ne nag danga jàpp ni yoon la donc léegi bu dee da jàpp ni loolu lépp yoon la ñu ne waa léegi fan la yoon teg lii nga xam ni mooy li xew li ñu gis parce que man jàpp naa ni bu fekkente ni bii nit ki daf ne dañ ne am na liberté dem ak dikk waaye bu fekkente ni yoon da ko woo ñu ne tëj nañ këram di ko tànnal yoon wu muy jaar te chaque jour nit ñaa ngi dem ci ay procès yoo xam ni kenn tànn yoon woo xamante ni bi kenn tànnalu la yoon wooy jaar waaye Ousmane Sonko moom rek mooy ki nga xam ni moom lañ ko fi def bu fekkonte ni bi moom dong moo ko fi mës a def ñu ne ah lii de moom dong mooy ki nga xam ni moo ko mës a def ñu ne ah waaw kon de yëf yi lii moom waru koo def parce que moom rek mooy ki ko mës a def waaye ñun dañu gis ni président Macky Sall ay nit gunge nañ ko fi sa Seck ay nit gunge nañ ko fi. ñoom ñëpp ci jamonoy opposition way wi ñu doon way naan boo ko laalee ña ngi ko doon way ci jamonoy président Macky Sall bi ñu ko wooloo la Sénégal génn gaay ne boo ko laalee kon lu mel noonu am na nañ wax nag ne peut-être day yamut parce que ci jamono ji ñu toll nii lay riir wutali Ousmane Sonko loolu ay nit ja yoo xamante ni bi soxlawut nga di leen sax dajale di leen jox dara pour ñu mobiliser peut-être que ni parti politique yi ñoom bu ñu doon génn daan nañ fexe activer yenn kii yeeg yooyu pour nit ñi génn mais lii nag day nekk lu spontané nit ñi dañuy génn c'est parce que nit ki moo leen ko jaral donc jàpp naa ni li nga xamante ni bi moom la Ousmane ko nekk euh, nekk na loo xamante ni bi pour nga mën koo comprendre il faut nga nekk moom ci li mu ne bu fekkente bi wa ilaa nga bokk ak moom gis-gis ci li mu ne waaye ñeneen ñi nga xamante ni bii mënuñu ko comprendre it dangay jàpp ni rek bokkuñu fu ñuy xoolee bokkuñu gis-gis ci ni nga xamante ni bii noonu la yoon di doxee parce que moom avant que muy jël dogal bi wax na la ne lii ak lii ak lii ak lii jaar na fi ak yoon loolu nag boo weddee lépp ne amut bu boobaa d'accord naa nga daa dee wax ne kon teguwut ci yoon donc da ngay indi ay argument yuy wane ni lii muy wax dara amu ci bu boobaa yu mën a ànd ak yow mais lu mën a am nañu fexe ngir réew mi ci jëmmi boppam ne ci jàmm parce que jàpp naa ni procès Mame Mbaye bi ak procès beneen bu koy nuru waruñu ñaan yàlla mu dugal réew mi ci guuta parce que léeg nga seetaan musiba yoo xam ni xew na ci yeneen réew Sénégal nag ñi ngi naan sëriñ si ñaan nañ fi kilifa yi ñaan nañ fi ay réew kilifa yi ay kilifa ñaan nañ fi ay sëriñ ñaan nañ fa et pourtant la fa xew ñëpp gis nañ ko donc ñun nag nañu fexe ba lu mel noonu bañ a yegsi ci sunu réew mi jàpp naa ni yii nga xam ni moom la ñuy wax lépp mën na mën nañ ci jóge am dal ci sunu réew te loolu mooy li nga xam ni ci la ñuy woo président de la république di ko ko ñaan parce que dañ ko jox réew mi pour réew mi nekk ci jàmm ak dal donc ñu ngi ko koy ñaan parce que loolu nekk na loo xamante ni bii lu am solo la ngir réew mi mu def ko ngir lenn rek ngir Sénégal fexe ba dal am ci réew mi lépp mu ngi ciy loxoom te bu bëggee jàmm am ci réew mi jàmm mën na am ci réew mi kon donc ñu ngi koy ñaan Sénégal gi yépp di ko ñaan ngir mu daadee taxaw ci loolu ba jàmmam ci réew mi